yaay kan man maay Baye Cheikh Diouf. Baye Cheikh Diouf waaw dégg Baye Cheikh Diouf mi nga xamante ni mooy taalif démb taalif bu neex bi ngeen dégg macha allah rabi ba ñëpp daanu moom mii la waaw donc mu nekk lu am solo vraiment xam naa ne moom ñun Bambey TV dañ ko xel di teg ndax nit ñi di ko mën ko xerawlu waaw. fat fa bange a njaɓa kene jayere fa ndigal bismilla im seede ndigil seex ndiggal wo jabu doggal wagaru feñil ndigil kene jarayre fa ndigal bismilla im seede ndigil seex ndiggal wo jabu doggal wagaru feñil fexen di gal wo ñakka ñaan in we ngeɗɗango dal fo ñaan nuru fi anan fop nu ñaan kene jaray ndigal fexen ndigal wo ñakka ñaan in we ngeɗɗango dal fo ñaan nuru fi anan fop nu ñaan kene ndigal nun ngaru so sagre naat bekor fanne ka sax u kaat nun jagolene garaat kene jaray المنكر صغرنا بقربانك سغوكار ننجاقول نيقرار ndigal seex ndigal la sang la koor ke taxum naa mee seen nu góor soo yab laa den mboota ngoor ndigal de ti battan boonu mu dan ke ta fit naa mee i nga aan seereer ke bu digal geti battan bo no murdan keta fitna me inga an sada ke fugo hendan digal indah landalai ya motuler inna garai nakana ini ini imanyai senakal indalandalai ya motuler inna garai nagana ini ini banyak diggal seen diggal lasum la koor keta hum naa mee nu koor soo yab laa den boota ngoor diggal seen diggal indi date seen diggal injaar date waata seen indi date ndigal seex isma rogo jajjun seex ndigal rogo junjun keta dem naa rogo andun kene ndigal seex ndigal rogo jajjun seex ndigal rogo junjun kene danna rogo andun ken ndigal seex ndigal rogo jajjun seex ndigal rogo junjun kene danna rogo andun ndigal seex isma rogo jajjun seex ndigal rogo junjun kene danna rogo andun ndiggal ndiggal garna xana dam tong o dan dan xana yokkong o bon bon xana faax non kene ndiggal ndiggal garna xana dam tong o dan dan xana yokkong o bon bon xana faax non kene ndigal ganna xana dam tong o dan dan xana yokkong o bon bon xana faax non kene ndigal ganna xana dam tong o dan dan xana yokkong o bon bon xana faax non kene ndigal ganna xana dam tong o dan dan xana yokkong o bon bon xana faax non kene ndigal ganna xana dam tong o dan dan xana yokkong o bon bon xana faax non kene ndigal ganna xana dam tong o dan dan xana yokkong o bon bon xana faax non kene ndigal ganna xana dam tong o dan dan xana yokkong o bon bon xana faax non kene ndigal ganna xana dam tong o dan dan xana yokkong o bon bon xana faax non kene ndigal ganna xana dam tong o dan dan xana yokkong o bon bon xana faax non kene ndigal ganna xana dam tong o dan dan xana yokkong o bon bon xana faax non kene ndigal ganna xana dam tong o dan dan xana yokkong o bon bon xana faax non kene ndigal ganna xana dam tong o dan dan xana yokkong o bon bon xana faax non kene ndigal ganna xana dam tong o dan dan xana yokkong o bon bon xana faax non kene ndigal ganna xana dam tong o dan dan xana yokkong o bon bon xana faax non kene ndigal ganna xana dam tong o dan dan xana yokkong ndigal seen ndigal daa sang lakkoor ke taxum naa mee seen nu góor soo yab laa dem boota ngóor ndigal ndigal xee ñoom rek xee yar naa moo ngeen do faax te ne ndigil ne ngeen do faax ndigal se ilma fi yarna o jegi iman Chandi gallo jegi iman ndigal seen ndigal i njaar date seen ndigal i di date waa tax seen date ndigal seen ndigal la sang la koor ke xarum naa mee seen nu góor saa yëpp laa den boo tàngoor ndigal jàpp julli jàng alxuraan damu baax xajaa jaxaan ref nan ke neerop famille del jàpp julli jàng alxuraan dama baax xaja caaxaan dem nan ke neeroog alijinaan famille del ba ngusta in we mbeg ba sembaare in we mbeg tang muy tan na in we santang kene jaray famille del bismillah in yeg kenne ngir moo xee tax kenne ndigalum ne gi kenne kinne ngir moom reetam naa kinne ndigalum ne giinu kinne ndigal ndew ndigal yege kañaan rogo xesun no fi kemaan kuta yar naa o jeg imaan ndigal ba Mustafa in we ngil man ba Seex Baara in we santang mu ndam naa in we man kene ja reefa ndigal Sëriñ Seex ndigal seen yaasa min me lool ta def bu jàppatu foofu foofu foofu dafa sëriñ na la jóglooro laay asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh jërëjëf sëñ Baye Sy neex na yëngu na ñi doon ramassé fale di ko wane ñu doon waaw am na ñu ma gis fale am na ñu taxaw fale di def bu leen jàpp bu leen turak bu leen doon sëñ Mamadou Bopp na defaru